réew moom jàmm moo ko yor lu mu am lu dul jàmm dana ko jaay dem jëndee ko jàmm te réew mi nag dafa mel ne ay slogan yu bees daf fi bi sologan yooyu nag du ay slogan yoo xam ne xam nañ ko ñun suñu démb xamuñu ko ñun alhamdulillah lañ xam waaye ñun xamuñu yaanaa maar dégg ngeen ma wax. wér na dégg nañ ko de. waaw ñun. alhamdulillah tabaarakallah mooy waxu sénégalais waaye ndaka mu nga ne yaanaa maar ñun xamuñu loolu mhm. ku ko fi bëgg a indi na jël loolu nga jàllale ko ca àll ba tey ay taxaw ci kaw yi mbedd di ñaxtu loolu du solution ku am solution buy doxal réew mi nga woote ca grand théâtre wala fu civilisé nit ñi déglu la nga wax sa programme wax li nga xam ne boo ko waxee ak dëgg la nit ñi dégg ko te jëfe ko solution moom du jeex taxaw ci mbedd di sànni xeer kooku moom man maa ko wax man Cheikh Bara Ndiaye guide spirituel daayira Kanzul Mouridina bés boobu ma dégg ñu di ko woote maa ngi ñaan nañ ko bàyyi nañ ko teg ci suuf te suñ ko defee tamit duñ ci am ndam liñ ci bëgg moo xam luñ luñ ci bëgg duñ ko ci gis duñ ko am yaanaa maar laa wax lii ñuy bëgg a def buñ ko defee duñ ci am ndam nañ woote jàmm ci réew mi ak dal Serigne Mor Seck man nag ñaanuma Macky Sall ñaanuma ko mësuma koo bind mësuma koo ñaan dara ci réew mi nag laa bokk am naa samay gis-gis su ma woowoon nag nu waxtaan bu ma maa ngi fii waaye buy bëgg tas nag am naa droit nag wax nee ko daal na yërëm jeunesse bi ak askan wi lu mu man ci teggi ko loo xam ne askan wi dañ koo tegoo te bu ko teggi woon mu nooy ci ñoom na ko teggi Sénégal nag dañoo yaakaar ne état bi mooy dugg ci kër yi di joxe dépasse kooku moom du am mukk ci àdduna amul fenn waaye nag état dina yombalal boroom kër ba mu yomb kon maa ngi lay ni ci sa njiit ne ko daal askan wi moom lu mu ci gën a dolli ak yërmande doy sunu sëriñ bi tamit Seex Seydil Maxtaar Mbàkke lu mu ko gën a fonk di dem Touba di diisoog moom lu muy nas na ko ko wax lu muy nocc na ko ko wax ndax kooku mooy mooy mooy premier citoyen mooy premier exemple ci Sénégal